Copa do Brasil. Ama Baldé ndax ku ne xam na ne mooy symbole Pikine symbole Pikine bi nag képp koo xamante si discipline boo mën a nekk dañuy yëkkati daal drapeau Pikine jox la ko noonu lañ ko lebewoon ci euh, Boy Niang bi muy bëre ñu yëkkati drapeau Pikine jox la ko Keba Seck bi muy dem Grand Théâtre drapeau Pikine lañ yëkkati jox ko ak keneen koo xamante ne yaa ngi Pikine di sol drapeau Pikine kon daal drapeau bi loolu moo ko tax a jóg ñaanal ki nga xamante ne mooy Ama Baldé bi niñ ko joxe woon Boy Niang mu jël drapeau bi jël ndam ni indi ko Pikine jël roi des arènes loolu mooy tax a jóg li nga xam ne mooy drapeau bi. waaw li may wax mooy Pikine rek la affaire Pikine la Pikine moo xewle waaw nag ñun jëwal yi nekk ay seen communicateur dañoo am benn symbole bi ñuy def symbole bi mooy képp kuy joxante nekk doomu Pikine ak ku mënti doon dina nekk symbole Pikine jox la ko. mooy raaya Pikine amuñu lu ñu kuréel Pikine bii ñu ngi woon ak doomu Pikine yëpp ñu ñëw seen doom seen rak muy Ama Baldé suñu mën a may ko ndam lu sedd guy ci kàttanu yàlla yoon tamit waaw. waaw bi na waaye nag Pikine Pikine yàgg na am bis bu rëy wax dëgg yàlla ginnaaw bi sant yàlla bi alayhi salaatu wa salaam maa ngi nuyu le monde entier nuyu waa Pikine yëpp boo gisee ñii sol lu weex. tey ñu yor drapeau tey ñoom ñooy les jeunes griots de la banlieue yaakaar naa ni may seen kilifa tey jii nag wax dëgg yàlla drapeau bi dafa nekk symbole Pikine boo xamante ni bi booy ñaari bëre dañ ko koo jox yàlla may ko ndam moom lañ ko ñaaxee tey jii Ama Baldé mi war a bërewaat tey moom lañ koy jox yàlla may ko ndam suba Eumeu Sène mi war a bërewaat moom lañ koy joxaat ginnaaw suba Siteu mi war a bëre jox leen ko parce que képp koo xamante nii Pikine moo la ñor dinañ la jox drapeau bi AS Pikine sax buy fubali dañ ko koy yóbbul parce que loolu mooy suñu wareef di suñu mbégte wax dëgg yàlla c'est la gagne c'est la gagne c'est ça c'est la c'est ça wallaay waaw après nag woote ci jàmm ndax Pikine moo jur parcelle ñoo ngi woote ci jàmm ak salaam waa Pikine nañu xam ne ñoom ñooy dalal waa parcelle ñu bëre ko ci jàmm yàlla def jàmm yàlla may ñu ndam bu sedd guy ci barke yonent bi alayhi salaatu wa salaam. waaw loolu

ko ak yoon wi bu ñu ñëw bu Ama Baldé ñëwee mu ñëpp dugal ñëpp tey ndax nee na mu ngi wër stade bi ci xel guddi yi mu ngi wër stade bi waaw loolu si guddi ñëw du fi nee na Abad Serprisita Ayapal di Serprisita Renanyong Mata Gunwai Nomor Pekito Ayo Ayo Assalamualaikum. Teman-teman,